kon nak mbokk daw len gaw abonné ji ci chaîne bu mag bobu de khidmatul khadim tv di chaîne bu am njëriñ ci dina na ci yoonu mourid khidmatul khadim tv dal liggéeyal serigne touba rek moo leen tax a jóg day wax ci buntu bi lu aji ci wolu ak gëmub dogal ak wakkilu ci yalla mu ne julit ñi am na ci ño xamne bi ñu tuddee xaswatul ahsaab ba mboolee dajaloo ñëw song si yonante bi bëgg koo faagaagal mook saxaaba yi taxu leen a saalit dañu amul wóolu dellu ci yàlla ne lii day moom la yàlla dogal te yonante bi waxan na ko nga xam ne le kuréelu yéefar yi bari bari dañoo dolli ko gëm dolli ko wóolu xam ne lépp rek ci loxo yàlla am nañu alxuraan di nett li ñoo xam ne dañ leen doon xupp ko tiital naa leen ah seen noon yi day li ñu waajal ci mbooloog ngànnaay mën leen koo dékku na ngeen daal deltu gannaaw léegi kat waaye wax joojee da leen dolli ak gëm ñu nun day doy loo yàlla te ku wékk seen mbir yàlla rek wékk nga ku doy sëkk dem nañ ca xare boobee fekk ñi yoroon ñi ñuy jaay ñu jaay ko fa tonawu ca tono ju bare bari far sax xare ba farul am ñu boole ngërëmul yàlla ak xéewali adduna yooyee nga xam ne moom lañ ci amaale wakkilul ci yàlla mi nga xam ne mooy dund faaw te du dee mukk ku bokkut ak moom rek am na fu mu yem kon nag dangay wakkilu ci moom mi nga xamee ne amul fu mu yem mu ne boo delloo ci alxuraan nga gis yàlla muy digal ñi yàlla ñuy wakkilu ci moom am na fu mu ne yonante bi itam boo xasee dogu na nga wakkilu ci yàlla te bul wakkilu ci diisoo ga nga diisoog saxaaba ya baa dara lu bokkut yàlla na nga yank rek yàlla am na fu mu nekk wakiirlu ci yàlla yàlla daal koy doy sëkk taxawu ko segal ko la mu ragal ñootlu ko la mu bëgg am na fu mu ne ñi gëm yàlla dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne buñ déggee buñ déggee yàlla seen xol day daal di tiit buñ déggee ñu jàngal leen laaye yàlla yi loola da leen di yokk gëm ba nag foo lu fekk dañuy wakiirlu rek ci yàlla wakilu mooy sabablu def la nga man ba nopi nak yang ci sa xol ne yalla rek mom moy sotal waye sa pexe yi ak sa fagu gi mënu la may mënu la musal du la yalla digal rek nak nga def ko waye ci deug deug yalla mom moy sotal lolu muy wakiirlu lol nak ibn abbas mo net li li jële ci yonte bi mu ne dañ ma won bu ne ak ña and ak mom di aw ñu won ma ab bo xamne and nak askurel ak lim waaye bari wuñ ñu wanaat ma beneen yonante ma gis mu ànd ak kenn rek mbaa ñaar ma gisaat ab yonante boo xam ne daa ànd ak mbooloo mu bari ma defoon ne sax man lay doon maanaam ma defoon ne sax man ci saa bopp maay kookee ànd ak mbooloo mu bari moomee ñu ne ma déedéet kee day muusaa la ak nitam ñu ne ma waaye nag ñu ne ma waaye nag xoolal ci gox bële naka ma xool ci gox bee gis mbolo mu bare bare bare ñu ne ma xoolaatal ci gox ba ca des ma xoolaataat ci gox ba ca des gis mbolo mu bare bare kon muy yaat kon muy yaari mbooloo yu bare bare ci ñaari gox yu wuute wuute ñu ne ma nag saw xeetangu noonu saw xeet ñoo bare noonu bi wane yonante bi mbolo mi nar a bokk ci xeetam yi ñu bari lool fees gox be fees gox bee dañ ko caa wanaale juróom ñaar fukki junni ñoo xam ne te kenn du leen xisaab kenn du leen mbugal ba ko yonante bi waxee daa jekki-jekki daal dugg ci biir kër ga jotta leeral ba xam juróom-ñaar fukki junni ñooñu ñan la lan mooy seenu melo nit ñi tàmbali xuus nag ci naa waaw ñooñu war a doon waay am ñu ne xëy na mooy ñi nga xam ne ñoo ko gis te gëm ko ànd ak moom ci ay saxaabaam ñooñu lay doon am ñu ne ah xëy na ñi nga xam bi ñu judd am ñu ne déedéet xëy na ñi nga xam ne ba ñu judd daa fekk lislaam taxaw naka ñu juddal yi dugg ci lislaam musu ñoo jaar ci bokkaale yalla dara dara xeyna ñoo lay doon di nattalay wax rek di wax rek far yoonte bi génnaat na ñu waaw lu di wax noonu ñu ne ko ah dañ doon wax kat ci li nga wax léegi juróom ñaar fukki junni yi nga xam ne dañuy dugg aljana te kenn leen xisaab kenn leen bugal ñum doon mu ne leen mooy ñi nga xam ne dañu jekki di moccal seen bopp duñu moccaloo kaneen duñu gaafal dara dañuy bàyyi lépp ak yàlla rek xam ne lépp moom yàlla mooy ko dindi ñooñu la kuy wax xukkaasa ne ko waaw ñaanal ma yàlla boole ma ci ñoom mu ne ko ca nga keneen ne ko mayit ñaanal ma yàlla boole ma ci ñoom mu ne ko na ah xukkaasa jiit na la ci ba noppi mais xukkaasa lañ may loolu foofu la yam xam nga bu jàlloon tam kenn day waxaat ne ko mayit ñaanal ma bokk ci ñoom moo tax mu ne ko nag kon xukkaasa fab na ko ba noppi buñ ne muttafaqun alayhi mooy addis boo xam ne al buxaari ak al nañ ca moom nañ mooy gën a wér ci addis yi addis ñaareel bi ibnu abbas moo ko nett li na yonent bi daan wax bu daa ñaan naa suñu boroom man de yow lay jébbal sama lépp yow laa gëm ci yow laay wakkiilu xam ne kon wakkiilu ñëw na foofu yow laay tuubal del si ci yow ku may xuloonteel sa jëmm a tax te ci noonu diine yaay tax may xuloonteel ñoom maa ngi ñaan sa tedd nga nag nga musal ma bañ maa bàyyi may sànku yow yaay dund te doo dee mukk lu bokk te yow nit ak jinne ak lépp lu am réew day dee te yow doo dee dana ibnu habbas nee na asbanallah wa ni'mal wakilu ibrahim moo ko njëkk wax dañ ko sànnee ci sawara wa ba tey muhammad ak i sahabaam ba leen muhammad ibnu mas'ud di ragalloo dañu dem di tase jeeg abu sufyan naa leen Abu Sufyaan ak gaayam daal mu yëfal lu boole ci ngànnaay ki mbooloo mën leen koo dékku bu leen dem mukk taseeg ñoom mu ne wax yooyu dafa leen a fat dolli ak gëm ak dëgër ñu daal ne ñun day doyloo nañ yàlla te yàlla ko wét ko wékk say mbir rek wékk nga ku doy sëkk jëmi laayib moom mi ngi ci ali ali imran ca lim mu tolloog te téeméer ak juróom ko ñett rawaahul Buxaari yi nag ibnu abbas moo nettalee ci yonante bi buxaari nag and na ko ci saxiixoom am na benn nettali boo xam ne ibnu abbas moo ko nettali dane na ibrahim mujjee wax bañ ko sànni ci sawara mooy xasbiyallahu wa ni'mal wakil xam ne foofu waxul xasbuna xasbiyallahu la wax foofa abu hurayra moo nettalee ci yonante bi mu ne am na ay nit ñu dem àjjana ñoo xam ne seeni xol day mel ne xol it ay picc ñu waaw lu jublu ñu dañu nekk di wëkkilu ci yàlla ni ki picc day wëkkilu mooy day jóg rek sawlu ji lu ko yàlla wërsëgale baax na waaye amul lu muy denc ci mbaa dara moom picc du tee nag mu daan dooleem xëy wuti bu ñu xëy bu ñu xiifaay bu ñu bisi fekk ñu rek ndax yàlla leen wërsëgal am na ne seen xol ñoom ñooñee ñooy dem àjjana te seen xol mel ni xoli picc dañu ne xol yu bari yërmande yu teref yu gaaw a jooy yu yërëmtalu jaabir mo ne daanu na yorante bi bu dem ci xare ci wetu naj bi doonte bi ñibbisi ñu ànd ak moom ñibbisi bañ tolloo ci waxtu kendal nak nga xamne wacc wàcc mën ta ñak ñu tasee xur yo xamne ne dafa am ay garab yu bari ay dekk yorante bi wacc nit ñi tam wacc kenn ku ne see garab go noppalu nit ñi dem di wuti ay garab yu noppalu yorante bi tam dem ci garabu sengu mom ci bopam mu di wacc mo yonte bi ñëk jëssem ni ci garab gi naka mu tud nelaw nak ben sam arab ñew di bocc jëss yonte bi ñew bu tim ko nak ne ko waaw ku dox sama digante yow ku temaay la yonte bi ne mu ne ko allah naka yonte bi wax allah ñetti yon rek jëss jorot bàyyi ko ci loxol sam arab bobu le yonent bi nit ki jooy si ne ko waa yow nag ku dox sama diggante yow mu ne ko xanaa nga jekku ba noppi jéggale yonent bi daal koy jéggal noonu ne ba tey defu ko dara loolu nett li li waaye daa wuteeg bee tuuti ndax dane na yonent bi nekk ca zaatu wiqaa ban àggee ci garab ker nu far ko ko bàyyee mu daal wékk di nelaw daka mu tëdd noonu benn waaye ci ñëw ñetti jëfëm ja bocc ko tim ko ne ko waaw ragal nga ma ndax mënuma laa ray ne ko déet ragaluma la mu ne ko kuy sama diggante yow mu ne ko xanaa yàlla boobu nettali fofu la ko abu bakar al ismaili andi na ca sahiho bobé nettali boo xam dane ba sabu arab bi ne yonante bi kuy dox sa diggante man yonante bi ne ko allah yalla jeesi daa tàmbalee rocciku daal di rot nako sam arab ba won, woon joosi ja jekki-jekki rot yonante bi jël joosi je ne ko waaw yow nag dox sa ak man mu ne ko xana nga mën fayu ba nopi jéggale yonante bi ne ko ndax nangu nga ya, séré né yalla rek ay bor man mi itam ndaw la lu yalla yoni ne ko mën na maa doomu ne lu yàgg-yàgg du ma xeexate yow du ma ànd teeg nit ñu jóg ngir xeex la itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal koy bàyyi naka mu dellu ci ay kaayam nag moom sàmm arab boobee ne leen ngi bàyyi ko koo xam ne jàpp naa ne mboolem nit ñi moo ci gën Omar moo ne dégg na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen nit ñi bu ngeen wakkirlu woon ci yàlla dëgg-dëgg yi wakkirlu nga yàlla kon mu leen di wërsëgal ni muy wërsëgalee picc yi ndax picc yi bu ñu xëyee seeni tàgg seeni biir day xiif dara du ca nekk waaye ba ñuy gont di ñëbb si seeni biir day fees ñu ne nag jubluwut ne wakkirlu dëgg-dëgg mooy toog rek fas say loxo ne yàlla man na ma wërsëgal ndax gis nga ni picci togu ñu ca tagge yi rek noona dañu xëy kay yaakar yàlla wut nak yàlla dal leen di wërsëgal ñu rek motax tax asiyoti day wax ne laysa fi hada alxadisi dalalatun ala alquudi hanil kasbi bal fihi ma yadullu ala talabi risqi لأن الطير إذا غدت فإنها تغدو لطلب الرزق وإنما أراد والله أعلم لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ولا ينصحون وهذا خلاف التوكل mu ne ni hadis bi waxe wane na ne nit ñi war nañoo sabablu la yàq seen sabablu kay mooy dañuy sukkandikoo seen doole bopp ak seen man-man duñu moytu itam wax lu amut ak wor ndax bëgg am rek wërsëg de bu fekkoon ne dañoo xam ne yàlla moom mooy wërsëgale jaam bi sabablu rek moo ko ca war buñ gëmoon lool te jàpp ko te rafetal aw wutiin kon yàlla baaxi leen di leen wërsëgal noone muy wërsëgale picc ya buñ dee xëy duñ yor dara bu ñu ñibbisi seeni biir fees dell li addis bi dañ ko albarra ibnu Haazib mu ne yonante bi day daa mës a wax ne yow diw yow diw jooju nag léeru kum doon waaye dana ko yow diw boo fatootee ba tëdd ci soblal waxal ñaan gi neel saa boroom man day jébbal naa la sama bakkan jëmale sama lépp ci yow joyale fab samay mbir yépp féetale la sama gannaaw gi ci yow laa ko wér mooy ci yow laay wóoru boole nag ragal la ak yaakaar la wóor mu ne kuy daw yow lay daw te ku bëgg fu làqu ba rawit ci yow lay làqu si gëm naa sa téere bii nga wàcce ci sa yonante gëm yonante bi ci boppam moom mi ngi ko wàcce ci moom mu ne ko nag lii booy tëdd wax ko boo faatoo ci guddi googee danga nga faatuwaale gëm yàlla bu yàlla mayee nga xëy ak jàmm itam da am aw yiw mooy jàmm rek ngay xëyee boo xëyee ak jàmm nga xam ne faatuwoo ca guddi googa am na ba nett li bu ñëw ci saxiifu muslim ak saxiiful bukhari te baraaw meenu weesu ba tey moo ko nett li jëli ci yonante bi mu ne man ci sama bopp man la yonante bi ne woon soo demee bay tëdd da ngay jàpp jàpp bu mel ni ngay jàpp boo dee julli boo tëdd it nga tëddee sa ndey daal di wax nag baat yi te baat yi nee na ñu weesoon rek ci allahumma aslamtu nafsi ba nam daanoo benn la ñoo nuroo daal mu ne ma nag da ngay wax lu mel noonu boo tëddee ba jekk te it fexe ba mujj saw làmmiñ nga xam ne moom ngay mujj wax hadiisu juróom ñetteel bi ci bunt bi abu bakarin siddiq moo ko nettali daa ràññeel ne abu bakarin mooy dàkkentelam abdullah ibnu usmaan mooy turam dafa tudd nag askanam fam tambalé ba fa mu yem ñu baña faté né ne ibnu bi fi doom bu nekké digënté yaari xalam am saga duñ ko bindalé du té nak boy jang jangum tékkalé di tambalé ci ibnu ja da ngay jangalé am saga bu fekkee da ngay jang nak di taqale mom do jangalé am sa gi niki nga né han abdullah ibni husman ibn amir nga xam ne booy jàppale baat moom ci sa wax yin doo jàngaale am sa gi mu ne sunu sang boobu di Aboubacar moom ci boppam ak baayam ak yaayam ñoom ñëpp ay saxaaba lañu moom moo nekk li ne ba mu nekkee ma yonent bi ca biir xunti wa te yéefar yi ñëw ba ca xuntima bëgg leen a gis nee na booba dañoo taxaw tiim nu nga xam kenn ci ñoom bu xooloon rek jëm ci fa tolloog ay tànkam dal nuy gis ba dal na yonante bi fiñ toll de ñu ngi nu tiim kenn ci ñoom bu xooloon fa tolloog ay ndëggoom rek dal ñuy gis yonante bi ne ah ñaar ñoo xam ne yàlla leen ñetteel yàlla leen ñetteel mooy yàlla leen di dimbale di leen sàmm loo yaakaar loo yaakaar ci ñaar ñu mel noonu mucc dong day nga cee yaakaar dara mën leen dal de yonante bi da koy wan ko man ak yow yàlla ànd ak nun te moo nuy sàmm moo nuy sàmm ba yéefar yi duñu nu gis ba di ñu def dara ñu wax ummul muminin rek day ko yonante bi yoroon muy soxnaam ndax suñu borom moo ne wa aswaajuhu ummahatuhum soxna si umu salamata lañ ko daan dàkkentale toom dëgg-dëgg nag muy hindu baayam ñu koy dàkkentale abu umayata tem tudd xuzayfatu mu bokkoon ci banu maxzoom soxna si mo nekk li yonent bi bu ma di genn ci néegam day wax ñaan gi day wax bismillah teg ci tawakkaltu xalallah dal dina suñu borom yalla mo musal ci man ci sa bop may réer ba wacc yoon wa nga xamne ne may tax ag ci mbir yu kawé ya kawé mba ken di ma réeral ba di ma wàccee yoon woow musal may ci may taraxis ba wacc yoon woow mba ken di ma taraxisal ba di ma ko wàccee musal may tam ci may tooñ kenn mbaa kenn di ma tooñ mbaa may réere kenn ba dal ci kawam mbaa kenn di ma réere ba dal ci saa kawam hadis boobu nee nañ saxiix la hadis fukkeel bi ci bunt bi anas moo ko nett li ne yonent bi day dane woon kuy génn néegam daal di wax bismillahi tawakkaltu xalallahi wala xawla wala quwata illa billah dañ koy wax ne ko yow day yàlla gindi la fegal la su boba nak setané dal di koy sori du ko ñëmé jégé hadis bobu abu Dawud ak tirmisi ak nasai ak ñeneen nett nañ ko tirmisi wax ni sax hadis bobu Hasan la zada abu Dawud tay wone né net lip abu Dawud amna lu ci ñëw lo xamni ñëwut ci benen te la fa yokk ca abu daawud mooy seytaane ci boppam mooy wax mel moroomum seytaaneem ne ko ah waa joo xam ne day yàlla gindi na ko aar ko fegal ko day xanaa de wacc ko rek laa ci xam jëtt jéem a jéemal sax anas moo nett li ne ci jamono yonante bi dafa am ñaar ñoo xam ne ay mbokk lañu kenn ki daan ñëw ci yonante bi ka ca des nag moom ami mécc moo xam ne ci lay yëngatu ka amee mécc nag ñëw ci yonante bi di jàmbat mbokk mi nga xam ne daal amewul mécc xanaa rek di ñëw ci yonante bi rek te bañ a wuti mécc yonante bi ne ko boo demee sax day ci barkeem la la yàllay wërsëgale at-Tirmisi yi moo ko nettali andee ko ci càllala goo xam ne buur la ci boos toppee ni nga xam ne moom la muslim di sart ne nii la ab kon nag mbëkk yi daw leen abon a ji ci chaîne bu mag boobu de xidmatul xadim tv di chaîne bu am njëriñ ci dina rawatina ci yoonu murit xidmatul xadim tv daal liggéeyal sëriñ Tuubaa rek moo leen tax a jóg faaxa wa kunta li bil